salaamaaleykum Pape. waaleykum salaam. Ah, bal ñu fàttali ñu tudd. Amadou Thiam. Ah, Papa Amadou Thiam euh, ñi ñuy waxtaanee tey actualité bëgg na euh, lu si gën a kii gis nañ démb ki nga xam ne moo di premier ministre mu nekk Ousmane Sonko nekk njiitu Pastef démb. mu oote woon fële si esplanade bu Grand Théâtre nga xam ne moo di waxtaan ak ndaw yu Pastef yi na naka la ñu war a mën a def pour que Sénégal daal di tegu si yoon yoo xamante ni kenn ku si nekk di nga si gis sa bopp bokk na si li ñooy waxtaanee wàllu yoon wàllu justice wàllu ak wàllu li nga xam moo soxal askan wi muy dundin beeg yi demee noonu tey jii ni naka nga gisee rencontre boobu mu wax ak ni ma ko gisee daal mooy euh, ñoom fi ñu taxaw ñu bañ a deltu gannaaw ñu bañ a mel ni ñu fi newoon démb. ñoom seen bi li ñu woote gën ci taxaw gën a góorgóorlu gën am fulla ci liñ ci amul ku amul ku nekk APR wala PS wala feneen li ñu woote daal ñoom nañ dem ba sës te ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu gën a góorlu gën a taxawu réew mi ah fi ñu taxaw liñ bëgg yàlla eggale leen fa buñ bu ñu ragalul rek yàlla dana leen bay ndam lu rëy ca kanam waaw man daal loolu mooy sama xalaat ci jàppale boobu gis nañ yaa ngi wax sànq gis nañ dund bi xaw na seer te ñoom am na loo xamante ni ñoom ñu ngi si doon ut que ni bëgg nañ li ñu suñ toogee luñ gën a bëgg def bëgg a njëkk def mooy daal di wàññi dund bi ak dundin bi pour que kenn ku si nekk mën see jotee ñu dët ma li nga xam moo di période tabaski ànd lan nga leen di waaw fu mu nekk nii moom affaire dund bi moom wax dëgg yàlla am ah, métti na ba ci kanam yàlla ndax askan ñu ngi leen di xaar bu ñu leen di xaar ba léegi Euh, yàgguñ fi moo tax askan wi mënuñu wax dara ci affaire euh, dundin bi ak euh, jafe-jafe yi waaye li man li mu leen di gën a conseillé mooy que ah nañu gën a am pas-pas góorgóorlu ba dund bi moom ñu jëm koo wàññil askan wi waaw taxi yi bu méttee ah dund bi day gën a cher te dund bi ku nekk mën nga jënd lu la neex nga jaay lu la neex waaye am na yoo xam bu ko wàññee rek dana tax dëkk bi équilibre nit ñi mën a liggéey nit ñi mën a dund dund bu baax ndax dund bi moom fu nek ni mom borom keur yi bari dañoo dañoo tëddee njaxanaay ndax son nañ lool bo ci kanam yalla waaw ndax fu nek ni jub jub rek mo meuna jubanti affaire jub rek. Euh, jub jubal jubanti mom lañ tek pour lepp li nga xamanteni ci nguru mak Macky Sall jàpp na ñoom dafa dëngoo ñu jëm koo jubanti. lool mom buñ ci taxaw lool mom dañu wara dem ba jeex tak parce que lool moy deug wa régime bi fi jóge mom ma tay lañ doon def ku waxal yalla rek te yalla tax xam ñoom liñ fi neewoon seen bop lañ fi neer koku mom ku xalaat ño wa APR sax xam nañ lolu wa lolu mom dañ ko wara top ba ca bam seus ñun li ci mëna am ha ah, ñu génné ko té buñ ci duggee danañ ci am résultat yu leer nañ man mala wax ni sam ma ngi wax naan duñ ci bayyi dara mu sé manam lepp lañ fassé yéene topp mu melni mom dafa dégg sey kàddu té ni dañuy top lepp li nga xamanteni ni jot na fay jaar ñu audité ko saytu wat bu baax nak nag momay daal doon. li mala wax ñom buñ duggé ci mission boobu danañ ci am ndam lu reuy ndax dañoo luubal alal réew mi te moomuñ ko alal ji waaw li ñu def daf nañ loo xam ne ñoom ah même bu avant ñoom ñuy toog sax imaam yëpp waraat nañ ko parce que réew da ngay askan wi boo yërëmee askan wi rek yàlla mbay lan waaye ñoom lañ doon def dafa nekk loo xam ne dafa mel ni ñoom dañoo bëggoon sénégalais yi na ci guerre ba at mi te loolu moom nañ ko topp ba ilaa yow mi yàlla danañ ci am ndam te yàlla dana leen ci defal ndam lu rëy rëy rëy rëy waaw te li ma lay wax ni ñoom bu buñ tàngalee ba tàng ñoom waa affaire yooyu danañ xam ne ñii ah fi ñu jëme moo gën ñoom tooñ askan bi ñoo tooñ askan wi dëggantaan léegi na leen gaa yi topp ba ca kanam yàlla waaw salaamaaleykum papa maaleykum salaam bal ñu fàttali ñu tur bi waaw ah, man la Kader Cissé dëkk HLM mhm. ah, waaw Papa Kader tey jii ñuy waxtaanee actualité gis nañ ki nga xam ne moo di premier ministre mu nekk njiitu Pastef président bu Pastef Ousmane Sonko démb mu doon dalal ay ndaw yi nga xamante ni ñi ngi bokk si bile parti di Pastef ngir xool naka la ñuy waxtaanee ngir mën a présenter li nga xam ne moo di projet bi si biir waxtaan boobu mu jël fa euh, li nga am fa taxawaay bu am solo bokk na si li ñu war a defaraat maanaam ñu xoolaat taxawaayu sénégalais yi xool bu baax képp ki nga xamante ni jaarul yoon la ñu jëm koo topp pour mën a génnee leer Euh, d'accord mon frère li nga wax noonu rafet na macha allah waaw di ñaanal yalla euh, gouvernement bi installé ñum ñoom ak Diomaye yalla leen yalla defal jamm wax rek mabet bu ñu am ci Sénégal yalla leen ko yalla defal franchement c'est nous dans nous Sénégal ben bop lu kenn mënu ko xat ñaar bien que ne war na waar mais macha allah daal di leen ñaanal jamm ak salam ñu rek jamm euh xalé yi yalla bu yalla tass sen yaakaar wax deug yalla yalla bu yalla tass yaakaar Euh, ne wax dëgg yàlla euh, Diomaye ak Sonko moom ah d'après daal lu ñu wax am nañ ci ñoom yaakaar bu baax a baax a baax. jërëjëf d'après si ñoom lu ñu wax gis nañ démb ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko muy mu mel ni day firndeel li nga xamante ni moom lañ fi daan gis rek parce que moom dafa daal di xamal ñi nga xamante ñoom la àndal muy waa Pastef nee na leen ku si mën di tooñ moo xam boo bokkee Pastef ak foo mën di bokk ñu la waree tëj dañ lay tëj duñ xool intérêt intérêt peuple. waaw jarbaat je suis d' accord avec Ousmane Sonko il a parfaitement raison dëkk bi injustice bi dafa dafa doy waar léegi lu waay neex def tu fais ce que mais dëkk moom si yow dafa war a tegu si dëgg rek boo tooñee ñu teg la si dëgg amul buur amul baadoola ñëpp ñoo war a yem waaw di wax dëgg yàlla Ousmane Sonko daal loolu daal loolu mu mébét moom yàlla ko yàlla motali du waa APR du waa la euh, Kaaw Ousmane Pastef Kaaw Ousmane Sonko nañ boole ñëpp képp ku loo xam ne deful daf daf daf nga safaan ñu teg la si yoon boo deful ñu bàyyi la Sénégal dem kanam waaw. gis nañ aussi wàllu dund bi ñu koy waxtaanee bañ toogee ba léegi ñu bëri di xaarandi pour ñu wàññi dund bi ñu la doon laaj tey ci ñoom seen taxawaay lan la war a nekk pour ñeel wàllu dund bi. waaw euh, bi moom wax dëgg yàlla cher na mais nag euh, ñii moom. kenn mënu ko leen wax dara parce que bu ñu fi toogee yàggugul waaw nañ leen muñal nañ leen muñal yàlla nag euh, mooy teg nit doomu adama lu ko neex mais incha allahu am nañ yaakaar si ñoom ñaari xale yi président Diomaye di président Sonko am nañ yaakaar si ñoom pour problème mu dund bi wàññeeku te si ñaan yàlla yàlla leen yàlla jàppale. nit moom wax dëgg yàlla bu nekkee si liggéey dañ koy ñaanal yàlla mu avancé. waaw ak lu mu métti métti métti métti yal leen yàlla jàppale rek ba ñu wàññi dund bi ku nekk gis nga sa bopp mais góorgóorlu maan yi moom sonn nañ trop yaa ngi nii yaa gis sax xam daa xar yaa ngi nii ñoo ngi nii ñun ay góorgóorlu maan lañu mais ba léegi euh, njëgu xar lu yàlla xam doy na mais plus tard rek incha allahu xam naa ne yàlla dina mos a sotti lépp waaw mais dund moom ku ne dund bi neex na actuellement nii day waar mais nag ñii mënu ko ma leen dara waaw dañ leen may battement ñu ngi door a jóg ñu ngi étudier ñaan yàlla Euh, dund bi yomb ñëpp yomb si ñoom mais pour le moment moom doy na waar trop dund gi moom métti na trop trop trop trop trop trop góorgóorlu maan ñu mel ni man wax dëgg yàlla dund bi euh, euh, métti na trop si ñoom mais nag dañuy ñan yàlla rek yàlla mu mën a yombal yàlla yàlla yombal lépp rek. merci Fallou Mbacké yow tey jii ñuy waxtaanee actualité gis nañ ko ah Badou waaw Badou tey jii ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne moo di actualité soxal li nga xam ne moo di ki nga moo di Ousmane Sonko njiitu Pastef démb mu amoon ay gan euh, démb mu amoon rencontre ak ndawu Pastef yi foofu noonu si esplanade du Grand Théâtre yi gis fa débat juddu fa ñenn ñi di kii comme si que Ousmane Sonko day imposer loo xamante ni du cëram yow noo ko gisee. Ah, xaw ma dafa massage xaw dafa bëgg a technique pression quoi parce wax ay ñii nii mënoo mënoo si mënoo pour de pour doxal réew bi li mu wax loolu la war a appliquer parce que tey jii ñoom keneen ak keneen mënoo ñëw di technique ci pression di tiitre loo xamante ni amoo benn source amoo benn preuve après bëgg ñi kenn du la wax dara léegi bu dee un citoyen lam daa teg loo teg pression kooku foog mu am exercice ci toog ndax ah aussi foog ñu xoolal dëkk bi pour mu dox nekkul waa doole yi kese lañ war di subir loo justice parce que justice bi da ça doit être universel muy yow muy man nii keneen ñun ñëpp si war a yem loolu nag mu muy wax noonu nag lancé bu mu jublu mooy li ma gis ni suñ ci tegoo loolu mooy jëmalee réew mi kanam si biir lancé boobu noonu sax gis nga xamante ni ñoom la àndal ndaw Pastef nee na ku si def lu dul yow parce que démb ñi nga gis mu ngi nettali sax xibaar boo xam mi ngi dox si diggante ak Ousmane Ndiaye mooy ministre de la justice ah. mu ne ko wan na ko benn vidéo benn ndaw Pastef boo xamante ni euh, daf daf doon def loo xamante jaar bu yoon ñu ko déggal laaj nax wax kooku war nañ koo topp mu ne ko jarul nga may laaj fii képp ko boo ko Pastef boo ko ku ah, mais loolu ngeen mooy yoon parce que tey jii maa ngi suñuy ànd man sama gars yi noo ànd yow man ku mun di doon présent pour gars yi respecté la soo buggee exercer loi say famille say mbokk say entourage si yow aussi da war a war a parce que tey jii nii comme nguur bi fi jàll lañ kii mun na def lu ko neex du ko si fekk mais keneen il suffit mu xaw a déraper tuuti waxuma la mu def ko ndax propre game mu déraper ñu teg ko kii bi teg ko daan bi après léegi ban état nekk kon nekkatul état loolu anarchie la mais bu dee moom li mu wax lool la ñuy appliqué nga bokk ci man nga tooñ kii bi day dal sa kaw kon keneen tamit su tooñee dina xam ne kii kat dafa lii muy def yoon la mais waruñu protéger kenn ñun ñëpp si war a yem su ko defee dëkk yi mën a jëm kanam kenn du mun a tutluwaat mais instant yi nii rek di jàlloon nag moom ñaanuñu yàlla loolu amaat parce que loolu noonu benn combat te journaliste yi tamit war nañ ci taxaw liggéey bi pour mun a exercer loi bi jàppale président voilà gis nañ aussi kàddu yi mu yëkkati démb maanaam képp ku nekkoon yore woon direction wala nga yore benn poste balaa ngay dem dinañ saytu bu baax xool foo dugal alalu askan wi yow ban jàngat nga si am ah mais loolu c'est excellent sa waay nit suñ la dénkee dara balaa ngaa tàmbali balaa ngaa def dara da ngay xool ñu fi fekk ba pare parce que nit ki mënoo xëy nii rek ñëw comme Sénégal lu ñëw Sénégal dafa yàqu ñun ñëpp ko xam pour Sénégal defaraat defaruwaat na ku nekk parce que mënuñu toog ay multimilliardaires yu circulé ci dëkk bi ci xaalisu réew mi dëkk bi nu muy développé léegi moom samit fexewul ba xaalis bi a ci caisse de l'État pour mu mun a liggéey liggéey ba pare ñu war a fay di fay taxe dëkk bi di dox loolu arrangement wu ñëpp la léegi moom ñun citoyen dëkk bi ñëpp ñëpp si war a te dëkk bi tamit dañ ko see soutenir parce que minoritaire bi la ñooy teg pression parce que ñun ñoo doon dundee nguur léegi comme de dundee nguur xewi na nag léegi dañ ko jàppale si loolu. mu mel ni jub jubal jubal bi nga xamante ni président Diomaye teg na ko Ousmane Sonko loolu la bëgg daal di jubal maanaam si jub jubal di maanaam képp ki nga xamante ni nekkoo woon si yoon ñu teg la si yoon sanction yi war a daal di daal sax. am mais sa waay loolu moom xam nga Sénégal mun nañu ne ak quatre-vingt-quinze pour cent musulman ñoo fi nekk yàlla sax loolee yonent bi moom fi nekkee ñu ko soxna si sàccoon ñu waroon dagg loo ñu naan ci fii la bokk ak famille bu mag ak yooyu loxo mooy ñun ñëpp war a yem ci droit amul chrétien nga amul musulman puisque pays la la ñu waruñu waruñ jubal affaire dafa war a jub tegu ci yoon quoi pour su ko defee ku nekk xam ni man mii kat ci dëkk bi laa waaye am na tamit keneen ku bokk ci dëkk bi ñun ñëpp ñu mun a tolloo naan ñun nee dessus au léegi tey jii nag bu dee kii nii moom ëpp doole ci réew mi ëpp ma fi ëpp ay nit ay mbokk moom su juumee wala mu tay am tayeef sax amee tayeef def li mu war a def léegi après man su ma juumee aw ma kenn ku ma jàppal aw ma kenn ku ma soutenir force lu ay day def affaire ban dëkk lay dugg anarchie totale mooy loolu noonu te loolu noonu weesu nañ ci gars yi xeex nañ ci sonn nañ ci dëkk bi instable na ay at ñu ngi phase de stabilité pour dëkk bi mën a jëm kanam képp kuy citoyen war a jàpp kuy teg pression boobu sax ñun ñu ngi ko retourné dal sa kaw pour nga bàyyi waa ji fi ñuy jeexalee rek mooy wàll dund bi ñu ëpp ci sénégalais yi naan ñoom ñoo ne woon duñ ci am deux mois ñu wàññi ko tey jii nii lu ëpp deux mois sénégalais yi di wax pour ñu leen dund bi tey jii est-ce que jotul ñu wàññi. waaw mais sa waay li am na lépp loo gis ndànk-ndànk procédure la tey jii nii xam nga par exemple ci deux mois même nit bu xelam sell sax di xalaat war na xam ni dëgg bi warul affaire warul mën a kii parce que ñëw bi ñu fiy jóge day ñëw yàqati dëkk bi ba nga xamante ni ba pare bàyyi commerçant yi di exercer nu mu leen neexee di poser les prix nu leen neexee tey da ngay jëndee lii su nga xëy di jënwaat même produit ñuy okkaat léegi loolu foog ñu réguler dëkk bi tegaat ko ci yoon ba régulariser prix yi ku nekk xam ne lii lii lay jar ba pare commerçant yi bañ di déborder ba pare di jàppale état comme période tabaski bi nii yooyu yëpp chaque fois su doon xew ñu jàll woon mais yi yii nii boog ñu ñu ngi koy xaar quoi. maa ngi Pape. maa ngi tudd Serigne Saliou. maa ngi Pape. gis nga Pape. Pape ay kan la lool. kii. père la def Pape la. mooy seen Pape man nag sa Pape la war naa ñëw taxaw ci jël micro bi défendre moom li mu wax noonu dafa am solo ñëpp xam nañ dëgg la. parce que dëgg moom boo ko déggee même boo am toog moom sax nga xam ne kii luy wax dëgg la Sénégal nag day xool lu ko arrangé rek mu jël si xool lu ko arrangé wu ñu bàyyi moom daan ba boo xoolee ñun ñoo wate nañ defar kon moom foofu la taxawaay taxawaay boobu la taxawaay boo xoolee am ñoo xamante ne Pastef lañ bokkoon wala ñu doon xeex Ousmane Sonko barki démoon Ndiaye la ñu lañu lañu am problème ci yoon ñoom da leen woo parce que loolu mooy yoon borom kër boo boo boo yore sa kër wala ñu dénk la sa kër lu ko ko defar sa biir kër ngay tàmbalee ba pare say doom ngay njëkk teg si yoon ba pare doomu jàmm boo ko tegee ci nga xam ne ah pour kii ay doom yar na leen ba pare parce que loolu mooy yoon yi dañuy loo xamante ne dañuy xool lu arrangé rek ñu wax ko loo xam ne arrangé wu leen ñu def Ousmane lépp mu wax da nga xam ne kii lu mu wax dëgg la mais dina gis ñoo xamante ne arrangé na leen dina gis ñoo xamante ne arrangé wu leen parce que loolu mooy yoon dëkk moom soo ko bëggee defar si ñu ngi jiital ba pare ngay defar il nga yaru ba pare pour mën a yar nit ñi mais bo yeru ba paré parce que gars yi dañuy xol ni naan Ousmane Sonko li muy dafa dëgër wala dëgër mais dëgg la boo gisé deug nga xamné xam ne li muy waxee yëpp la man bokk sama gis-gis loolu laa ko gisee gis direction boobu direct direction vidéo wala a doon dinañ ko man boog man loolu sama gis-gis man tey su ma dénkoon sa sa micro bi soo ma ko dénkoon tey ma wàcc nga dem ba ne ma sama micro keneen laa ko bëgg a jox man avant nga mën a am kaay xool li mu mën a liggéey sax man maa war a am ngor ñoo taxaw ne lii Habib daal la liggéeyee parce que loolu lañ soxla si askan bi askan yi ñoo waroon am ngor nga taxaw lii ak lii lañ leen defal si lii ngeen di dénkoon nit ki lépp loo ko dénk ba ba mu war la ko delloo wala mu war ko delloo askan wi am na droit taxaw ne leen man lii ak lii ñi fi nekkoon ñoo war gore ñoo seen bopp ñu ne ah yéen lii ak lii ak lii lañu lañu def loolu Ousmane Sonko warul taxaw loolu moom ñi ñi fi nekkoon ñoo waroon am ngor bu toll noo xamante ne ñu waroon ñëw ne ah sénégalais ñoo ñu dénkoon lii dem ngeen ba wóorateelu ñu lii ngeen ñu dénkoon def nañ ci lii ak lii ak lii ak lii parce que man loolu laa di sama bis loolu avant Ousmane Sonko di ko wax loolu li fi nekkoon sax ñoo waroon gore taxaw wax loolu moom waru ko wax sax ñoo waroon dem setal seen bopp ci yoon bu fekkee dañ leen tudd si yoon ñoo ñoo waroon dem setal seen bopp ci yoon ñu xam ne ni ñii ay liggéeykat lañ tey ñi fi nekkoon buñ fi gisee ñoo xam ne nii ay liggéeykat lañu woon man guur bi war nañ leen a jël sax dugalaat leen foofu ñu continuer liggéey bi parce que ñun lépp loo xamante ne Sénégal moo ñu ñor baax moo ñu ñor képp du cadre moo xaar Ousmane Sonko yooyu noonu nga eh, am réew soo ko defal le président moo defal lépp yàlla mu yor lépp joxul ñëpp njëkk suñu boppam ku nekk lu ko loo xamante arrangé na sénégalais mu tàmbalee ko benn par benn mu tàmbalee ko defal mu am ñeneen ñu jàpp ni moom Sonko taxawaay mooy fayantikoo ak mbir mi ndax yow loolu rafet gis nga gis nga li yëpp xaaroon nañu parce que tey bu bu waxee rek dañ naan non lu jot ci gi tax barki lu nekk def nañ ko fi bu saako ceeb 300000 lay jar moom sama borom dimbali na ko suuraal na ko am loo xam war na ko mën jëndee gis nga am loo xamante ne bu mu xool naan noo day fayantu koo dina tey man mën naa toog ne sama lépp ngi dox réew mi sama yoon ne aussi boobaa kenn du ma ci mere mais su ma jugee na damay xel sama réew rek gars yi xool ma xam li ma am yàlla mu may suuraal saako ceeb bu doon jar 300000 maa ngi koy am wala maa ngi faj samay soxla mais dañu xool loolu nekk si ginnaaw ba pare nit ki boo boo boo toogee jàpp sa ñàmb dañ naan la Sénégal ñor Ousmane sonk lépp lu ñuy moo xam lu nekk daj na ko fi avant ci nguur loo xalaat daj na ko ci nekk moo na ko ci bu yàggee à la fin dem ma xam ne nguur jartu ko ma ne nga xam Sénégal yëpp bu baax loo xamante ne tey mun sama loxo jotewu moom loxo jote na ma ko xeexal mais damay ànd si moom loo xam ne lépp loxo da ko bëgg bu deful lu dul yoon moom dina taxaw ne ma li ma def lu dul yoon man bokk gis-gis man laa gisee mu leen ñaanal gars yi liggéey liggéey moo leen tax a jóg bàyyi liggéey liggéey bi nag du ñoom ñooy tàmbalee liggéey ñun ñooy tàmbalee liggéey bi ñoom ñu fekk ñu si wala ñun ñu tàmb ñoom ñu tàmbale ko ñu fekk ñoom si mais bu ñiir defar ñiir yàq Sénégal bi mos a jàpp nañ ko bàyyi ñu liggéey nañ leen bàyyi ñu liggéey bàyyi leen gouverner ñu xool ñoom li ñuy liggéey ñoo xam ne tooguñ bi sax même pas trois mois gars yi parle leen sànni tey ñu gëtt pour lan mais nañ leen bàyyi ñu liggéey bu bi fi nekkoon nañ leen bàyyi ñu liggéey bañ ñee ba xamante ne askan bi ñoo taxaw Ousmane Sonko askan bi ñoo taxaw nag dooleel nañ ci ñoom waaw man jàpp man jàpp naa lépp loo xam ne dañ ma ko dénk nit ki dem bëggatul ma ah yaa yaa ma dénkoon bëggatul am mais ba nga ma dénkee defal naa la lii ak lii ak lii dinaa bàyyi léegi nga taxaw saytu càmbar ba xam lii ni ma la ko joxee ba xam lii nga ci waroon def wala lii nga ci waroon def man boog sama gis-gis loolu la. incha